noonu nag jaajëfewaat naa leen bu baax ah yéen suñuy internet maa ngi leen di nuyu di leen kontaanee am mbégte janoog yéen chaque jour ngir indi li gën a fës ci bopp yi ci nag damay nuyu ñi ma feggoo la ki ma feggoo sax laay wax tey Mbaye Babacar nekk fi daa xaw a socc Assane nuyu naa la ne Mbacke fay naa la di nuyu internetu Leewtoo TV amaan mbégte jàkkaarloo ñoom pour indi leen li gën a fës ci yéenekaay yi mu ngi noonu nag Iwil Jador moo indi may revue bi chaque jour fii ci Leewtoo TV nee naa leen consommer local la doomu réew moo ko fi def nañ ko consommer mu ngi noonu samedi 10 avril 2021 ci Leewtoo point net la ñuy dooree xibaaru làmb lam ci xam ne na mooy dernier face to face bi dox ci diggante Lac de Guiers numéro 2 ak Eumeu Sène démb ku ci nekk la nga guuxaloon sa morom ca combat ba wax nga ko. dëgg la Ndeye Mbacke démb la woon dernier face à face entre Lac 2 ak Eumeu Sène ñaari mbër yi nag ñu ngi daje woon ci émission ngoonee bi nga xam ne nii moom mooy confrontation. daje naan fa nag wax naan fa euh, li tax seen combat bi duré quarante minutes euh, te amul attaque amul dóor amul dara ku nekk nag euh, mere nga sa morom Lac de wax na jox Eumeu Sène Eumeu Sène également delloo na ko wax ji en tout cas daal émission bi neexoon na amoon na ambiance mais au finish ñibbi nañ ci jàmm macha allah. mu ngi noonu nag ci combat 4 avril lañ desee ba léegi 5 millions 590 mille dagg nañ ko mbër nga xam te ne nii mooy Lac de Eumeu Sène ak ki nga ne mooy Diène Kaïré Assane dëgg la Ndeye Mbacke journal suñu laam moo xëy wax ñu loolu nee na mbër yi doon bëree foofu keroog dimanche arène nationale bin pare dëgg na leen cinq millions cinq cent quatre-vingt euh, cinq millions cinq cent quatre-vingt-dix waaw loolu la neen dagg nee na Eumeu Sène dagg nañ ko deux millions sept cent dix mille loolu lépp ci wàllum avertissement ak euh, nombre de supporters wala nombre d' accompagnement yi leen permetre ñëpp ko ak ay minutes yoo xam ne nii ci temps de préparation mystique bi la leen def donc Eumeu Sène dagg nañ ko deux millions sept cent dix mille Lac de Guiers dagg nañ ko deux millions six cent dix mille kii di Diène Kaïré moom dagg nañ ko soixante seize mille je pense euh, léegi Modou Anta nag moom moo fa euh, ñëwagul jotagul reliquat am loolu tax liñ ko dagg kenn xamagu ko pour le moment. mu ngi doon nag la de Guiers numéro 2 lay mbébétam nekk ci xorom xalaatam mooy titre roi des arènes ba tax na mu ngi jëm fee ca Paris la France d'ici peu pour cinq mois Mouhamed Aly Ndiaye lam ci xam ne mooy dafa bëgg a yokk li nga xam mooy agressivité am maanaam muy tàngal di attaqué. ma def benn rectification rek Diène Kairé ñu ngi ko dagg euh, deux cent soixante dix mille exactement loolu lañ ko dagg comme ni nga ko waxee euh, Lac de Guiers moom rek moo nekk VIP boo xam ne nii déggagul roi des arènes amagul chance de bëre roi des arènes léegi nag euh, objectif après bi mu jógee ci Eumeu Sène mooy que mu atteindre objectif boobu looloo tax nag mu war a dem ay France d'ici France ay mois cinq mois la journal suñu làmb làmb wax nee na daal dina fa dem yokku xeexam bu baax a baax a baax pour que bu mën a ñëwee loolu di objectif bu roi des arènes mu mën ko atteindre. ma ngi doon nag Ama Baldé Modou Lo combat non régularisé face to face bi nga xamante ne yàqu na keroog fee ca Sen TV lu ne ko laay di promoteur ba Biram Ñing di nga ki nga xam ne ménagère Modou Xarañ Lo di roi des arènes bi ak Abdou Boxum <laughs> euh, ménagère Ama Baldé convoqué nañ leen fee ca Sen TV. dëgg la euh, Ndeye Mbacke xam nga CNG day euh, aaye ngay def face to face te régulariser go sa combat te combat bi war a dox ci Ama Baldé ak euh, Modou Lo Luc Nicolaï régulariser go ba pare dem mardi passé di def face à face loolu nag moo naqari waa CNG ba tey moo tax ñu convoqué leen xam naa bu leen di dinañ wax lan moo waral ñu def face à face boobu te auparavant régulariser woon combat boobu. ci noonu nag ba léegi Ama Baldé Modou Lo ñaar dañoo xiifante. combat royal boobu di dox ci ñaari mbër yooyu ku ci nekk yaa ngi bëgg daan sa morom mais Ama Baldé li tax rivalité bi gën a metti Ama Baldé Modou Lô da koo daan fee ca terrain la euh, Ndeye Mbacke boobu la journal suñu làmb tey euh, def ci benn étude maanaam benn jàngat xool rivalité boobu fan la cosaanoo li mu wax nag mooy que ne rivalité boobu mi ngi cosaanoo ci benn mbapat bu amoon ci terrain église bu nekk Parcelles Assainies ñaari mbër yi dañ fa dajee woon loolu mën na ay 10 ans maintenant ñu daje fa Modou loo daane ko mais nag boobu ay xale lan Euh, waa journal suñu làmb ne ne defet boobu ba léegi dafa jàpp Ama Baldé looloo tax daal seen rivalité bi am te euh, combat royal bi di incha allah dinañ fa yóbbu boobu moo tax combat bu nar a neex lay doon. te nar a metti samedi fête Thiès kii di Ousmane Gandigal ak Safi Dieng un duel de loup. dëgg la Ndeye Mbacke combat boobu euh, Sidi Diakhaté di promoteur Thiès boobu moom moo ko war a dal foofu suba ci dimanche bi Safi Dieng nag mu nekk foofu ci Thiès yi benn écrit bu naan Omar Diko. war a dalal Ousmane Gandigal bi nga xam ne nii ci Grand Yoff mbooloo lay jógee mu war a nekk nag combat bu neex foofu ci cees ñaari jeune la combat bu nar a neex daal lan fay xaar suba ci Thiès incha allah. bu ñu jógee Thiès dañuy dem ba arène nationale fekk fa Cheikh Super Jamono ak capitaine Dina. ñoom ñaan ñooñu ku ci am ndam ci combat boobu rek dina la ubbil bunt yu baree bari ci wàllum làmb asal dëgg la ba tey loolu tamit euh, suba lay xew ci dimanche bi waaye ci arène nationale fii ci pikin lay xewee combat boobu war a dox ci Cheikh Super Jamono mi nga xam ne nii mu ngi nekk écurie Mor Fadam euh, war ci janoog ak capitaine Dina bu jógee yoof combat boobu nag euh, promoteur bii di Serigne Modou Niang moom moo ko taxawal Ndeye Mbacké. muy noonu nag samedi et dimanche arène nationale gaal gi ak Adrien Senghor 8 millions dañ ko fa nar la séddale Assane. dëgg la loolu lutte simple la euh, weekend bi lutte simple bi day tar bu baax a baax a baax samedi am na dimanche am na tey lay door ci samedi bi arène nationale lay njëkkee Fallou Ndiaye moo fa tëgg benn gala lu mu fa teg 4 millions la tegal euh, lutte simple euh, mbër yi lutte simple yi suba ci dimanche bi ñaari galaa dina am benn dina am terrain gaal gi Jax moo fay teg 3 millions. beneen bi dina am euh, arène Adrien Senghor boobu Jo Mbassa benn jigéenu promoteur la moom moo fay woo amateur yi moom un million la teg foofu. record lañ jëm lam ci xam ne Adama Diatta moom ma qualifié ci Jeux olympiques yi la muy ñaan nag mooy autorité recevoir ko Assane. dëgg la lii lutte olympique la moom di Adama Diatta euh, semaine bi passé mu demoon euh, Tunisie am fa qualification ci Jeux olympiques yi nga xam ne nii mi ngi xew ci Tokyo 2021 moom nag après bi mu qualifié nee na li muy xaar ci autorité yi. mooy que ñu dalal ko minimum loolu la xaar pour que ñu permetre ko nag euh, def ko ci condition yu baax yoo xam ne nii dina ko permettre mu préparation bu préparer bu baax a baax a baax euh, quali JO yi pour que bu demee mu mën ci am benn médaille incha allah. ma ngi doon nag MMA lañ jëm rëg-rëg ginnaaw ba mu amee ndam ci ci kaw ki nga xam ne mooy Patrick lam xam ne mooy ca combat ba dafa waroon pare physiquement ak mentalement pour mën a gagner combat boobu Assane. dëgg la rëg-rëg buy bëree sénégal yëpp dañuy am confiance ci moom te yaakaar ne day yomb moom nag nee na demeewul noonu. yombul tellement ndax euh, da ngay préparer physiquement ak psychologiquement bala ngaa dem ci combat nee na nag avant muy dem loolu lépp pré préparé woon na ko waaye combat bi yey yombul woon malgré que ne kaawoon na adversaire am ci premier round bi nee na yombul woon waaye nag lim liggéey lim liggéey nga tax na ba affaire yi mu mën ci génn facilement. ma noonu nag maa lay jaajëfal bu baax Assane Waalo loolu moo nekkoon li gën a fës ci bopp xibaar yi Assane looy tàggatoo maa ngi lay remercier euh, Ndeye Mbacke di remercier internetu Leewtoo TV yi di remercier Yacine Fall Mansour Bamba euh, mbay Babacar mi nga xam ne ni dafa faj <laughs> dafa corona <laughs> di leen remercier bu baax a baax di leen jox dig daje leen di projet incha allah. mu ngi noonu nag maa leen di jaajëfal bu baax di kontaan ci yéen lu bare bari bari bari ah nuyu internet yi Mbaye Babacar soj bi garaawul soj ci ci nit la boo wax nit ñëpp dañuy soj. mu ngi noonu corona rek instant yii <laughs> Euh, Mansour Fall maa ngi lay kontaanee bu baax sama caméraman bi Yacine bëgg naa la Bamba kontaan naa ci yéen bu baax a baax di jox dig daje internet yi ëllëg incha allah wala lundi sax laay wax bu soobee yàlla ak yonente bi jërëjëf bon week-end à